أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته comme niñ ko baaxoo def ñoo ngi ba tey ak téere yàlla bi tabaraka wa taala toll ba tey ci suura ala imran di jël tey ñaari aaya aaya 154 aaya 155 ñaari aaya yi nekk sunu kanam borom bi tabaraka wa taala dinu ci jàngal juróomi mbir juróomi mbir yoo xam ne war nañ ci bàyyi xel ndax ci mooy ndigalal yonent bi alayhi salaatu wasalaam la bàyyee ko moo tax la daloon julli di dal leen bi njëkk ci njàngale yi ñu jëlee ci ñaari aaya yi tey mooy ikraamillahi taala li awliyaihi bil amaan alladi anzalahu fi qulubihim teral gi nga xam ne borom bi tabaraka wa taala teral na ko ay soppeem yàlla dafa am ay soppe keroog badr keroog uhud daf leen a teral defal leen kiimtaan ba ñoom ñu yëg li leen yàlla tabaraka wa taala defal naka noonu nag yàlla moom saa yu amee ay xaritam rek ay xéewalam day wala ngaan ci seen kaw keroog yàlla defal na leen bi amaan yàlla defal na leen kóolute kóolute goo xam ne yàlla wàcce na ko ci seeni xol ndax tiit nañ suuf si rëngi-rëngi na seen kaw ndey joor ak càmmoñ kanam ak ginnaaw yëpp dóor nañ leen ko jam leen caw leen i jaasi ba daaneel yonent bi alayhi salaatu wasalaam damm bëñam xuri oomam toj boppam waaye keroog yàlla wàcce na kóoluteem ci sahabatul kiram yàlla wàcce na ak dal ci seen xol ñaareel bi mooy ihanatullahi taala li aadaihi dinañ jàng ci aaya yi ne yàlla jamono bu nekk day doya dal day toroxal ay noonam nan la leen di toroxalee mooy bi xirmaanihim ma akrama bihi awliyaa li yàlla xañ jullit yi maanaam li yàlla xañ li yàlla defal jullit yi moom lay xañ yéeféer yi yàlla lan la tere la jullit yi daf leen may dal dalal seen xel lool nag la yàlla xañ keroog ay noonam yi nga xam ne raxoon nañ ci biir jullit ñi ku leen seen teg leen jullit ndax soloon nañ coli jullit mel melokaanu jullit waaye ndeke xol ya duñu ay jullit wa hum fi makaanin waahid nee na ñaari mbooloo yi ñu ngi ci benn place waaye ñee am dal ñee di trembler di tiit kon loolu xéewal la bu yàlla tabaraka wa taala defal ay soppeem ay xaritam ñetteel mooy taqrir mabda alqada wal qadar danañ jàng tey ñun ñëpp ñu war a ànd gëm saxal principe boobu ñuy wax dogal ak dog alqada wal qadar dogal ak dogu olof yi dañ naan ndogal goo gis tànki boroom a ngi ci ku dogu rek yàlla dogal la maanaam saa yoo dogoo ne da ngay bay tool ba dem ut say lépp préparé lu des ñu daggal la tool nga bay wa anna man kataba mawtuhu fi makanin la budda wa an yamuuta fihi képp ku yàlla dogal na yow ci place bi foofu ngay deewee sikk nekku ci ne fa ngay deewee loo wëri wëri wëri wër ci place boobu rek ngay deewee parce que yàlla loolu la dogal ci yow kon nit dafa war a gëm dogal loolu moo tax mu bokk ci suñu pas-pas ci arkaanul imaan juróom-benneel bi mooy al imaanu bil qadr nga gëm dogal dogal yooyu nag xayri wa sharrihi bi neex ak bi naqari doomu aadama yëpp foofu la ñu rawantee mooy lan ci dogal ki la gën a gëm dogal moo la ëpp ngëm yàlla tabaaraka wa taala waaye ki nga xam ne gëmul yàlla li muy dogal day jàpp ne diw la wala su ma defoon nangam wala man maa def nangam fekk mbir yëpp yàlla la sàmba amunul demba munul kenn munul yàlla rek bi iznillahi tabaraka wa taala su sottee moo ko sottal bu amee moo ko amal bu neexee moom la bu naqaree noonu moom la boo wéree moom la boo feebaree moom la ndax loolu la la bindee moo tax jullit principe boobu mu war ko gëm mu yëg ne bisu dee dee la benn benn mbokk ndeysaan dafa bokkoon ci ñuy jël gaal yi dem tukki xaw na fa yàgg nag léegi dafa ñëwaat fan yi bi mu ñëwee ma xool ko xool ko ba ci yàgg ma ne ko yow wala moo la dugal ci nga jël gaal yi di di dem Espagne mu ne ma damaa gëmoon ne su ma waree dee ci ndox mi ci ndox mi laay dee bu ma warul dee du ma dee xam naa ne damay dee su ma toogee Sénégal damay dee bu ma duggee ci ndox mi damay dee bu ma demee Espagne damay dee waaye kañ laay dee moo ma jaaxal léegi nag ma ne naa dem rek bu fekkee ne dee naa rek ma xam ne foofu la woon mu ne ma dem ndeysaan allahu akbar mbokk yi ñeenteel mooy afaalullahi taala laa taxlu abadan min hikamil aaliya yàlla li muy jëf ay xereñ yu kawe du ci deñ mukk yàlla lu mu def rek loolu la fa yajibu at taslim izan lillah kon nag li war mooy nga jébbalu ndax yàlla ay mbiram mënoo koo peeg mënoo koo xam te yàlla lu mu def am na lu tax mu def ko kon nangul li yàlla def nga noppalu waaw yonent bi muy jàngal xadis bi ibnu mas'ud dafa ne ko yàlla yëkkati na xalam gi big bi waaye këyit gi fendi na kon nag gëmal li yàlla def yëgal ni àddina bi yëpp bu ñu àndoon bëgg laa dimbali ci mbir mii te yàlla newul du sotti du sotti yëgal ni àddina bi yëpp buñ la doon noonu te yàlla nee na day sotti day sotti yàlla yëkkati na xalima gi këyit gi fendi na kon jullit dafa war a jébbalu ci mbir yi yàlla teg ci kawam war rida bi afaalihi mu kontaan ci li yàlla def lépp lu yàlla def ci jaamam yi rek loolu la war a def soo soo gëmee mbirum ginaar ginaar ak borom ginaar ak nen ku moom ginaar nit ki ku moom nen yi nit ki su ko neexee mu rey ginaar gi bu ko neexee mu baxal nen yi ndax day am bakkaar ndax dafa tooñ kenn lu ko neex mu def ko yaa ko moom du la neex nga def jeex na yaa tam yàlla moo la moom lu ko neex mu coobarewu ko ci yow nee nga moomee nee di coobarewu ci lu la neex yàlla moo la moom lu ko neex mu coobarewu ci yow soo amee pas pas boobu nga noppalu boo wéree nga baax na nga sant yàlla boo feebaree nga sant yàlla boo amee nga sant yàlla boo ñàkkee nga sant yàlla noonu la doomu aadama di rëccee ci pexey seytaan juróomeel mooy azambu yulidu zamb wa sayyi'a tatawallad anha sayyi'atun ukhra wa liza wajiba at-tawba min az-zamb fawran mbokk yi juróomeel li ñuy jëlee ci aaya yi mooy bakkaar bàkkaar rek lay jur bàkkaar yulidu mina zann bàkkaar day jur bàkkaar lu ñaaw lu ñaaw rek moo fay nekk looloo tax pour nga mën a dañ ci bàkkaar mën a dañ ci lu ñaaw kon tuub da lay war nga tuub ci bàkkaar ci lu gaaw saa yoo defee bàkkaar gaawal nga tuub ndax boo defee bàkkaar di xaar rek bàkkaar boobu day kaste sa xol xam nga fu mu la jëmee mooy ci beneen bàkkaar comme ni boroom xam-xam yi di wax rek fa nazaratun fa btisaama fa kalaam fa salaam aw fa kalaam fa mawid fa liqa yàlla dalaa tere nga xool jigéen wala ko tere qul lil muminina yaghuddu min absarihim bis bu la yàlla nattoo nga xool tuubu xam nga fu mu jëmeeg yow ubbi nga bunt bi da ngay muuñ sa première xool boo sajjul xefoo tuuboo ci li nga def ci minute yooyu seconde yi xam nga lu mu lay jural mooy da ngay muuñ waaw muuñ yëngal sa bopp tuuboo muuñ gi xam nga fu mu la jëmee waaw kàddu nuyoo mais booy alors gis nga tuuboo xam nga fu la nuyoo boobu jëmee jël contact foo dëkk adresse numéro téléphone tuuboo loolu xam nga fu mu la jëmee rendez-vous du gooto wëri ko woo ko maa ngi ñëw tuuboo loolu xam nga fu mu la jëmee rendez-vous bi ngeen rencontré ñaar tuuboo rencontre bi xam nga fu mu la jëmee njaaloo moo tax ñu ne la boo defee bakkaar léegi tuubal soo tuubul rek ubbil na la beneen bunt may na la fit da ngay dem acc bu la yàlla dimbaliwul nag xam nga fan ngay ximmilikoo biir bàmmeel ak ay bakkaar yi dul jeex doo tuub noonu yàlla musal ixwatal iman loolu mooy ñaari aaya yi nga xam ne moom la ñuy jël tey bi iznillahi tabaraka wa taala bismillahi arrahmani arrahim ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمان أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق زن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مداجئهم كتب عليهم القتل إلى مداجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم تقى الجمعان إنما استذلهم الشيطان ببعد ما كسبوا ولقد أفى الله عنهم إن الله غفور حليم borom baa ngi nettali xew-xew Uhud mu ne keroog borom bi tabaraka wa taala nee na ba ñu mooyee ndigalu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu wàcc xeer ba yéeféer yi wër nañ leen ndeyjoor ak càmmoñ ci kanam ak ci ginnaaw dóor leen duma leen duma yu métti ba ñu daw yonent bi topp leen di leen woo amul kenn ci ñoom ku gëstu waaye yàlla tabaraka wa taala daal di wàcce mu ne summa topp anzala yàlla wàccee na aleykum ci yéen min baadil xammi ginnaaw métitu xol ak naqar amanatan kuula kiiraay al amn mooy dal yàlla wàcceel na leen dal keroog dal googu fan la ko yàlla préparé dugal ko ba ñu yëg ko mooy nuaas yàlla defal leen ko ñu gëmmint xam nga nit bu tiitee boo nelawee rek dem na ah jeex na boo tiitee tëdd nelaw alors da nga ragalati keroog naqar gi ñu am ci seen xol xam métit boobu ñu denc alamu nafs métitu xol ak tiitaange yàlla wàccee leen ko amanatan kóolute nuaasan ngëmmentu goo xam ne yaxsha muur na taifatan minkum lenn ci yéen yàlla wàcceel na leen ngëmmentu goo xam ne muur na seen yaram yëpp ñoom ñëpp ñu gëmmentu ñu nelaw al amana hiya al amn mu ne mooy kóolute kañ lay nekk takunu indal xawf ci jamono ju nu tiitee ci lay am kóolute mu am kiiraay su ko defee mu yëg ak dal wala am na yakunu ma al xawf saa yoo gisee ñu ne kóolute am na dafa am ragal ko fa nekkoon jàngeen suratu quraish fal yaabudu rabba haazal alladi ataamahum wa amanahum gis nga baat baa ngoog wa amanahum min xawf yàlla defal na leen kóolute ba ñu ragalee kon ragal tiitaange goo gis day ànd ak dal ànd ak kóolute ginnaaw tiitaange rek kóolute day ñëw dal dal ñëw moo tax yàlla tabaraka wa taala defal na leen loolu mu ne ba sax lenn ci ay sahaaba di nettali ne ñoom bokkoon nañ ca ñu tiit ku mel ne Abu Talha Zubayr Anas mu ne xachayna an nuaas xatta inna sayf la yasqutu min yadi ahadina fa yatanaawaluhu min al ard ñoom ñett nee nañ kenn ci ñun nelaw yi jàpp na ko ba jaasi ji mu yoroon sax yenn saa yi mu wadd ci suuf mu foraat ko ndax yàlla loolu la leen indil pour tiitaange gi ak naqar bi dañ ci seen xol moo tax mu ne summa topp anzala yàlla wàcce na aleykum ci yéen min baadil xammi ginnaaw métti yooyu ak naqaru xol bi amanatan dal nu aasan ngëmmentu nelaw goo xam ne a nawm yaxsha muur na am na ñuy jàng taxsha am na ñuy jàng yaxsha taifatan kuril minkum ci yéen ñooñ ñooy sahaaba yi àndoon ak yonent bi yàlla moo leen defal loolu bi leen yàlla defal loolu fa zahabal xawfu tiitaange gi dem anhum ci ñoom ba kenn ci ñoom nee naa la nelaw gi jàpp na ko ba jaasi ngànnaay bi mu yoroon ci loxoom day mujj wadd après mu jëlaat ko mu ne ñaareel bi wa taifatun am na beneen mbooloo assaani am na beneen mbooloo anna ahlu shakk nee na ñooñ ñooy naafiq yi ñooñ ñooy nitu sikki sàkk yi wan nifaq haramahumullahu taala yàlla xañ na leen min tilkal amana yàlla xañ na leen dal googu yàlla xañ na leen kiiraay boobu te pourtant ñi ngi ci biir mbooloo mi fa ma zaala al xawfu yaqtau qulubahum nee na tiitaange gaa ngi dagg seen xol te ñu ngi ànd ak yonent bi moom ñoom lay nettali nii mu ne wa taifatun am na beneen kuréel ca dëgg-dëgg ahammathum yitteel na leen anfusuhum seen bopp ndeysaan mbooloo moomu ñu ngi ci biir mbooloo mi ànd ak jullit yi ànd ak yonent bi waaye kenn ku nekk moom la mu tal ci biir mbooloo mi mooy porox ndoll gu mu gis ba daw ñibbi nan lay def ba mucc ci dee bu mu dee tey boppam rek la tal talul keneen moo tax yàlla rek moo xam kumpa yàlla rek moo xam li ci xol yi xoola ki ànd ak yonent bi mbooloo mi ànd ak yonent bi keroog yàlla xaaj na leen ñaari xaaj ñee mu defal leen dal defal leen sécurité dindi tiitaange gi ci ñoom ñii parce que ay naafeq lañ parce que li ñu wax du dëgg parce que li leen indi ci xare bi du dëgg gis nga yàlla li mu wax qad ahammathum yitteel na leen anfusahum seen bopp yemuñ ci sax yazunnuna ña ngay njort billahi ci yàlla gayral xaq lu dul dëgg ña ngay xalaat ci yàlla lu est ce que yàlla am na est ce que yonent bi yàllaa ko yónni est ce que bu ko yàlla yónni woon dinañ ñu gañe lan moo tax lii am nga ña ngay njort ci yàlla lu dul dëgg hammathum yitteel na leen anfusahum seen bopp laa yufakkiruuna xalaatuñu ñoom illa fi najaati anfusihim lu dul lu leen rawal ñoom naam ndeysaan gayra mukathirina bima asaaba rasulillahi wa asaabi nekkuñu ñoom di xalaat tey li dal yonent bi ak sahaaba yi déedéet ñoom seen bopp moo leen yitteel yàlla nee na dem nañ sax ya zunnu na ña ngay njort billahi ci yàlla xayral xaqi lu dul dëgg gis ngeen fii lu jara taxaw la de léeg-léeg ab jullit jafe-jafe jàpp ko wala feebar jàpp ko wala wala wala wala ba xelam wala xolam di njort ci yàlla lu dul dëgg parce que seytaane moo lay def loo lool moo tax yonent bi ne day leen dox aouzu billahi mina sheytaani rajim di ko tëfli ci seen gauche bu leen seytaane buggee jax-jaxal ba ngay am njort sa digganteeg sa borom xam nga yàlla ak nim mel ak ni mu amee kattan yónni ab yonent mu génn di xeex ak ay yéeféer yéeféer yi duma jullit yi sa xel lu mu lay jox waaye gis ngeen foofu yàlla dafa maandu gis ngeen mbirum féey féey féey xam ngeen féey mooy lan féey mooy lan dem ci géej sangu soo jëlee ko gëm yàlla benn wala yi bu gëm yàlla ku baax munul feey nga jël benn yéeféer boo xam ne ci géej gi la juddoo fa la mën a feey nga sànni leen ci ndox mi nga ne damay seet ku gëm yàlla loo def luy xew kan mooy dee ah yaa ko rey parce que lu nekk dañ koy jàng xam ko loo gëm-gëm yàlla jàngal jëlal say motukaay defal li nga war waaye damaa gëm yàlla rek daal di cëppeelu ci biir safara si da ngay lakk ba jeex tàkk parce que waxuñu la loolu saxaaba yi keroog li tax ñu duma leen mooy war yonent bi ñàkk dégg ndigalu yonent bi moo yàlla di leen jàngal ñu duma leen duma yu métti léegi nag borom pas-pas yi nga xam ne wérul ay naaféq lañ commencé di njort ci yàlla lu dul dëgg est-ce que est-ce que yàlla am na bu yàlla amoon dina bàyyi nu nuy duma yonent baa ngi ni gaañ nañ ko damm nañ bëma bëñam xori nañ óomam rey nañ rey nañ Hamza rey nañ Musab ibnu Umayr am na benn téere bu tudd Suhadaa Uhud ñi dee Uhud yëpp seen turu ngi ci ñeneen ñi ña ngay njort ci yàlla lu dul dëgg zannal jahiliya mu ne ñeneen ñett ñi beneen kuréel kuréel bi mooy ñi nga xam ne ay naaféq lañ nga xam ne seen boppoo leen yitteel xalaatu ñu luñ seen bopp ak tey lu leen di rawal ci dee wahum mooy ñi yàlla di wax ci aaya bi taifatun qad ahammathum anfusuhum mbooloo mi nga xam ne seen bopp rek rek rek moo leen ñor ñoom dem nañ yazunnu nañuy njort billahi ci yàlla xayral xaq lu àndul ak dëgg zannal jahiliya njortu ceddo huwa itiqaaduhum anna nabi qutila aw la yunsar ñenn ñi ne yonent bi rey nañ ko ñenn ñi ne kenn du ko dimbali ndeysaan moo tax pas-pas su baaxulee rek du dem jullit dafa war a wéral pas-pasam nangu ndogal yàlla matière de guerre guerre la da ngay dóor ñu dóor la nga caw ñu caw la nga jam ñu jam la nga rey ñu rey la léegi da ngeen jàpp ne ku gëm yàlla moom dafa war a dem guerre yi rek yóbbu cent personnes cent personnes yëpp dellu si dara du leen duñ la dara du leen laal déedéet rente la kon dellu sa matukaay balaa ngay dem ña ngay njortu njortu ceddo ña nga naan yaquluna ña nga naan hal lana min al amri min shay est ce que ñun mbir mi am nañ ci dara est ce que lii sunu mbir la ndeysaan est ce que lii sunu mbir la ndeysaan haza al qawlu qaaluuhu sirran wax jooju kat ndànk lañ ko wax ci seeni xol fa ma bayanahum leeru luñ ko ci kaw wa maanaahu laysa lana min al amri shay mooy ñun daal mbir mi amuñu ci dara walaw kaana lana ma xaraj na wala qaatal na ñun mbir mi bu doon dëgg la l'islam bi bu doon dëgg kon duñ génn suñu kër yi kon kenn du xeexi kon kenn du ñu jàmm waaw yaquluna ña ngay wax borom bay nettali de hal lana min al amri min shay ndax mbir mii ñun am nañ ci dara min shay ba ñuy wax loolu waxuñu ko ci làmmiñ yuux ko ci kaw waaye seeni xel ak seeni xalaat moo ko tudd rek yàlla xam na ko yàlla xam lépp yaalamu xaainatul ayun wa ma tux fi sudur yàlla ne yonent bi tontu leen na aaya waa ci léegi qul waxal innal amra mbir yi kullahu lépp lillah yàllaa ko moom ngeen gañ ak ñu gañe leen ngeen dund ak ngeen dee ñu jam leen ak ñàkk leen a jam yàllaa ko moom yàlla yemul ci loolu mu ne gaa yi yux fu na ñu ngay nëbb fii anfusihim ci seen bopp maa loo xam ne laa yubduuna laka duñ la ko leeralal yow yonent bi gis ngeen ngay nëbb ci seen xol yi loo xam ne duñ ko leeral yonent bi lan la ñuy nëbb mooy est-ce que yow yàllaa la yónni est-ce que dëgg la lu tax ñu gañe la lu tax ñu rey sa baay bu ndaw ah lu tax ñu ngi koy nëbb ci seen xol gaa yaa ngi taxaw nii de taxaw sàppe ci kanamam waaye seen bët yeeg seen xol yi mi ngi wax ak yonent bi sama moo tax naa féq doy waar parce que problème xol la a ndeysaan te nag bu fekkee Umar moo doon tuumaal boppam kon ñun nag xam ngeen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla da ko xamaloon naafeq Medina yëpp naafeq yi ñu ngi dëkkoon Medina yonent bi daal di jël seen tur daal di koy tuddee daal di koy jox benn saxaaba saxaabam nu mu tuddoon Huzayfa yonent bi booba Huzayfa ba mu ñëw mu ne ko diw naafeq la diw naafeq la diw naafeq la mu ngi fii ci jàkka ji guddeeg bëccëg mi ngi ànd ak man guddeeg bëccëg waaye naafeq la Omar day bàyyi ba guddi mu ñëw kër Huzayfa ba ñëpp tëdd mu fëgg bu Huzayfa ubbee mu ne ko waaw amirul muminin loo fi def ne ko benn mbir rek moo ma indi damaa bëgg a xam sama turam ci turu naafiqi wala nekk fi Huzayfa ne ko yonent bi dana woon bu ma waxee tur yi daal di koy woon ginnaaw yonent bi dana woon bu ma waxee tur yi allahu akbar Omar ñun nag kon xoola Uzayfa maandoom ak ragal yàlla amirul muminin moo ñëw fëgg buntu këram ne ko sama tur laay xool ci liste bi la yonent bi jox mu ne ko yonent bi nee na bu ma waxee tur yi Omar naka la daan xamee naafiq yi soo amee ku dee biir Médine Uzayfa Omar naan dem leen ngeen wooyu Uzayfa su Huzayfa ñëwee bokk ci julli gi Omar julli bu Omar nee nii xool mbooloo mi gisul Huzayfa mu ne wooyu leen Huzayfa Huzayfa bañ a ñëw Omar jël daalam ne jullee leen seen néew ndax yàlla daa tere ñu jullee naa féq daal dana yonent bi wala taqum bul taxaw ci bàmmeelu kenn ci ñoom ku dee te bul ko ñaanal yàlla te soo ko ñaanaloon juróom-ñaar fukki yoon duma ko baal kon na leen seetaat sunu bopp seetaat sunu xol yi seetaat sunu defaraat sunu pas-pas da ngay jàng aqida ñu lay wax an nifaqu nawaani naafiq ñaari façon la yooyu la jara xam comme ni nga jàng ñu ne la ashirku nawaani bokkaale ñaar la nga jàng ñu ne la an nifaqu nawaan naafiq ñaar la nga jàng ñu ne la al kufru nawaani weddi yàlla ñaar la loolu lépp nga xam ba nga mën cee mucc soo ko deful la ngay tarax tarax yi di dem rek di mbëkk rek ba ëllëg yowmal xiyaamati yàlla daal lay buub sànni kàmbu jahannam nan ci yàlla musal ñii ngi nii ñii bu doon du yàlla moo wax li kan moo ñeme ne ñii duñu ay jullit ku ànd ak yonent bi jël jaaseem ah war fasam ba pare yàlla mu ne ñii yux fu na ñu ngay nëbb fi an fu ci seen bopp maa loo xam ne laa yub duuna laka duñ la ko mës a feeñalal waaye ñu ngi koy nëbb yamuñ ci loolu sax yaqul na ña nga naan law kaana lana min al amri shay'un bu fekkoon ne mbir mi ñun am nañ ci dara maa qutil naa haahunaa kon kenn duñu rey fii gis ngeen waaye bu doon mbir mi dëgg la kon kenn duñu rey kon du dëgg allahu akbar kan moo xalaatee nii ku ànd ak yonente bi génn këram ne day jàppale ji diine ndeke pas-pas bi mu nëbb baaxul pas-pasu naa fekk la nëbb yow yonent tontu leen qul waxal law kuntum su ngeen nekkoon fii buyutikum ci seeni biiri néeg sax la baraza alladina kutiba alayhimul qatlu ila madajiihim bu ngeen tëddoon seen lal sax ñu war a dee ci yéen danañ dee malaakal mawti dana leen fekk foofu rey leen ñu dee kon dem geeri taxul ngeen dee dee moom yàllaa ko teg seen kaw bu ngeen nekkoon ci seen kër yi bañ a génn dee dina leen fa fekk waa ji nee na kii day dee ci ndox kii dee ci avion kii dee ci lakk kii dee ci feebar kii am lu dal ci kawam mu dee kii am lu ko mbëkk mu dee kii tëdd lalam dee dee benn rek mu ne façon yi ñoo wuute waaye benn kese la dee dee la rek façon yi nag ñoo wuute waaye benn kese la waaw benn façon benn rek la dee dee rek la ñii nag dañu ne ñoom lan moo tax ñu gañe leen kon li nu nekk du dëgg ndax tey bu doon lislaam dëgg la kenn du leen gañe mooy tey lii xew ci àdduna bi boo xoolee ni ñuy sonale jullit nga nga ni waaw est-ce que est-ce que islam bi dëgg la est-ce que man dëgg la yàlla mooy segg yàlla mooy natt parce que yàlla moo nu wax ne lii ku ci dugg rek ñu xool la parce que dafa bëri ñu naan ci laa bokk te bokkuñ ci waaw léegi naa benn waaye dafa toog ak ay sëtam ak doomam yi naan yàlla naa dee yal na dee ñëw bu dee ñëwoon tey jii doyal na rek malaaka bi ne cëpp ci kanam ne ko kër gi de laa war a jël si kenn mu xool benn sëtam mu ne kii de sama sët la de mais moo ma mag ah loolu nu mu nekkee kii sama sët la de mais moo ma mag te moom moo doon wax dafa bëgg dee dee ñëw ne ki gën a mag ci kër gi la ñuy jël si mu xool sët bi ne sama kii de sama sët la waaye moo ma mag kon li mu wax du dëgg bëggul dee waaw allahu akbar dee kenn rek moo ko ñeme ci àdduna kenn kenn dong moo ñeme dee muy ku gëm yàlla kese moo gëm moo moo ñeme dee ku gëmul yàlla ñemewul dee ku gëm yàlla dong moo ñeme dee mais ku sa pas-pas wérul gëmoo yàlla ngay yëg fii di tëf-tëfi sa diggante ak sa borom sa xol bi di tëf tëfi sa diggante ak sa borom nga naan ah man mii nangam nangam doo ñeme dee waaw su fi baaxee rek sa xol bi bu baaxee rek jeex na waaw waa ji jaar ci mbedd mi di dox ñu naan sàcceey te moom sàccul ndax dina tiit ndax dina ragal ndax dina geestu tey dem yoonam rek du faale kenn puisque moom xam na ne waxuñoo moom waaye ki sàcc génn ñu ne sàccaay lu ngeen xalaat waaw am na lu mu def allahu akbar moo tax yàlla mu ne alladina amanu walam yalbisu imaanahum bi zulm ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla jaxasewuñu seen ngëm ak bokkaale jaxasewuñu ulaayika lahumul amnu wa hum muhtadun ñii ñoo am sécurité ñii ñoo am kóolute ñii ñoo jub parce que ñoom xam na ne jaxasewuñu waaye ki jaxase ah ki jaxase sëñ bi taxaw leen dañuy xool seen saag yi ndax kenn ci yéen yorul dorog te yow yaa ngi yor juróomi kilo da ngay commencé naan ko sëñ bi déel ma sama saag bi waaye damay sawi waaw wala nga teg saag bi ne bu ñu nekk moom saag bi nga xool fële sëñ bi ana sa saag nga ne man yoruma woon saag de commencé kon sunu ngëm gi nañ ko xool nanu moytandiku jaxase sunu ngëm gis ngeen ñii seen ngëm gi lañ jaxase moo tax tey ñu am problème te ki ñu amal problème mooy koo xam ne lépp la xam mooy yàlla lañ doon xalaat la yàlla sulli ci biti won ko yonent bi ne leen tontu leen mu doon islaam dëgg la kenn du ñu rey yàlla ne leen borom bi tabaraka wa taala ne leen qul law kuntum fi buyutikum wax leen ñoom bu ñu nekkoon ci seeni biiri kër yi la baraza allazina kutiba alayhimul qatlu ila madaji'ihim kon dana génn la xarajo la xaraju min al madina danañ génn madinatul munawwar zahirin feeñal seen bopp li yalqu masaari'ahum hunaalika ngir ñu jël seen dee foofu dee fépp fu yàlla wax ne foofu ngay dee rek foofu ngay dee amul feneen même bu la fekkoon ci seen biir lal yàlla mu ne allazina ñi nga xam ne kutiba farataal nañ alayhim ci ñoom alqatlu dee dee wala rey yuridu fi kitaabi almaqadir an allaw fi fi lawhi almahfuz yàlla dogal na loolu ci téere buñ naan téere dogal ca lawhul mahfuz yàlla ne diw palaasu sàngam lay dee sikki nekku ci ne day dee sama waa ji ma leen doon wax sànq nee na keroog ba ñuy dem di jóge Sénégal di dem Espagne ñaari gaal lañ ñu ngi déparé Ngor nee na gaal gu nekk 60 personnes et quelques mu ngi ci nee na bii jiitu bi nekk ci ginnaaw nee na gaal gi jiitu woon 60 yi dañuy dee nii ñoom ñu leen di gis bañ jeex tak kenn génnul ci biir géej gi. ndax dañoo dem ci biir géej gi ñoo ñee ngi ci ginnaaw ñii ñu ngi ci kanam ñee nekkoon ci kanam jékki-jékki rek daal di dugg foo xam ne ndox mi day tourner mel ne pax moo fa nekk. gaal gi ñëw rek dugg foofu ndox mi tël gaal gi gaal gi këpp mu ne ñëpp dee ñoom ñu leen di xool nee na ñoom ñooñu ñoo leen sauvé ndax bu fekkoon ne ñooñu jaaruñu foofu ñoom dañ fay jaar nee na biñ séenee ñooñu di dee ñoom ñu teggi 60 personnes et quelque amu ci ku ñibbi si waat Sénégal ñëpp a dee ci biir géej gi gis nga ñooñu foofu la yàlla waxoon na la ñuy dee mu ne ñoom ñeneen ñi des ñu nekk ci biir gaal gi dem seen ndax jeex seen lépp jeex amatuñ luñ lekk xamuñu fuñ jëm ñu ngi jubal rek wala loolu mu ne treize jours ñu def ko ci gaal gi lekkuñ naanuñ xam nga loolu dara gën ko gën a garaaw amul alal dafa jar lii mën nañu jékki-jékki seen ay picc ci kaw asamaan si mu ne leen picc yi fi ñu nekk dëkk lañ tiim mu ne ñu dem dem dem dem ba jaag ñu seen ay làmp di tàkk nekk Madrid lañ dugg gis nga mais deuxième gaal bi mu ne kenn deewu ci mais am na ci ñu sonn ñoo xam ne dañ leen a laxas ay mbaaj dugal leen ci suuf denc leen ndax sonn ndax dañoo wàccu ba mënutuñ taxaw ma gis ngeen ku war a dee da ngay dee rek waaye foo warta dee bu doon ci avion nga war dee it te waroo dee doo dee ndax fi yàlla wax sa ajal foofu lañ ngay dee wala yàlla mu ne ñii bu ñu nekkoon seeni kaw lalit danañ dee mu ngoog mu ne li yàlla def na lii lu tax wa wali yabtaliya allahu ngir yàlla nattu maa fi sudurikum li nekk ci seen biir xol yi xam nga yàlla lu tax mu nattu jullit ñi ñu gañe leen ñii ñu rey leen ñii ñu gaañ leen yàlla def na loolu pour mu nattu ñi ànd ak yonent bi ñan ñoo ci dëggu wali yabtaliya ngir yàlla nattu allahu yàlla maa fi sudurikum li nekk ci seeni dënn wali yu ma xisa ngir mu segg maa fi qulubikum gis nga natt bi ñëw segg bi ñëw ñaar yëpp yàlla def ko pour xam ñi ànd ak yonent bi ñan la ana ñan la fi ngëm bàyyi ana ñan ñoo amul ngëm ana ñan ñoo xamee intérêt rek dem xeex yi jël ci ngañaay yi moo leen indi mu ne wallaahu yàlla alimun ko xam la bi zaati suduuri li ci dënn yi gis ngeen aaya bi mu ko tëjee wallaahu yàlla alimun ku xam la bi zaati suduuri li ci xol yi li ci dënn yi yàlla xam na ko aaya bu jara taxawa ngi nii lu tax est-ce que ñu ñëw tafsir ñëpp man xam naa lu tax ñu ñëw est-ce que yéen xam ngeen man lu tax ma toog fii tafsir kenn xamul waaye wallahi yàlla xam na ko yàlla xam ne li leen indi yàlla xam ne li tax may wax fii ñun ñëpp yàlla xam na ku nekk yàlla xam ne li tax nga ñëw yàlla xam ne boo fi jógee foo jëm xam ne fi ngay fanaani xam na tax di nga yeew wala doo yeewu yàlla xam na li ngay liggéey yàlla xam na li yàlla xam na li ci xol yi léegi nag ay yu mel ni lu mu lay dimbali mooy boo xamee ne yow yàlla xam na la jeex na da ngay noppalu soxlaatul keneen waaw rabia da doon wax laytaka tarda wal an wal anaamu xidaabu yàlla boo kontaanee ku mer affaire am la sama yoon nekku ci man yàlla mu kontaan rek laa bëgg li ma waa ji doon nettali di anamu barki démb ba am benn xale bu jigéen bu bëgg a muuru ndeysaan ay mbokkam di xeex ak moom ne ko doo muuru mu dëgër bopp ñu génne ko école bi mu doon jàngee mu bàyyi bàyyiloo ko jàng am ci xale école yi mu doon àndal ku toog lu yàgg gisu ko dem di ko seeti ñëw seen kër toog di waxtaan ak moom ba caag rek ne ko waa yow diw diw di da ngaa jeex lan la rek yaay jaa ngi toog yaay ji ne kii fa mu jeex dafa bëgg a bon ne day nekk ibaadu moo tax mu jeex mi ngi nii de bëgg a bon allah dafa bëgg a bon moo tax mu jeex parce que nee na day muuru dafa bëgg a bon di léegi yaay jooju moom lu ngeen xam ci moom ana imaanam si am na imaan ma ne kon nag yàlla yenn saa yi foog mu créer ay événement ndax mu xam ñi gëm ak ñi gëmul xanaa xamoo ci événement yi la yàlla di génne ñi gëm ak ñi gëmul parce que événement bu am rek di nga positionné léegi nga wane foofar ko defee nag yàlla xam la génne la yow daal lay segg yàlla tameem la yor rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awabina ghafura yàlla tameem la yor rek di lay léeg-léeg mu lay rek am ñu wadd mu jël ñeneen ñu dijj ñi teg fee ne ñii moom bokkuñ tibbaat mu ngi nii aaya yaa ngi nii wali yabtali allahu ngir yàlla nattu maa fi sudurikum mu xam li nekk ci dënn yi waaye wali yu ma xisa mu tame segg lay maa fi qulubikum fële lan la wax maa fi fii mu ne maa fi qulubikum xol lan moo ci dënn lan moo ci nekk ah xol bi lan moo ci nekk dënn bi lan moo ci nekk xol bi moo fi nekk li ci xol bi moo nekk ci biir dënn bi léegi nag yàlla nee na ñaar yooyu foog mu génn li ci dënn bi génn li ci léegi nag yenn saa yi nga wax ak kenn rek mu ne ah yow lii da nga koo dencoon sa xol li nga dencoon moom nga génne waaw parce que événement bu xewee rek foog nit génne pas-pasam yow de lii da nga koo dencoon moo tax ñii li ñu dencoon seen xol depuis ñu ne dugg nañ ci lislaam di ànd ak yonent bi moom lañ génne tey moo tax yàlla becc ko ba mu set yàlla ne sama tame laa yor rek maa koy génne mu ne wallaahu yàlla alimun ko xam la bi zaati suduri li ci dënn yi kon nag nañ leen seet lu nekk suñu dënn inna lazina gaa ñi nga xam ne tawallaw daw nañ wane ginnaaw min kum ci yéen yow ma bis bi nga xam ne iltaqa daje woon na aljamaani ñaari mbooloo yi yéeféer yi ak jullit yi daje ay jullit ne pëccët daw lan mooy wane ne ay jullit ñoo dawoon ci aaye bi non ci aaye bi laa wax am na benn baat buy wane ne jullit yee daw min kum damir bi inna lazina gaa ya nga xam ne ismu mawsul la tawallaw daw nañ wane ginnaaw min kum ci yéen leen jullit yi saxaaba yi yow ma bis bi nga xam ne iltaqa daje woon na aljamaani ñaari mbooloo yi gis nga ñooñu de ndeysaan daw nañ waaye xam nga lu xew innama stazallahum sheytaan sheytaane leen tarxis loo ndeysaan am nañ imaan am nañu pas-pas mais sheytaane moo leen ne daw leen te ngeen dee daanañ leen rey ñu daw dañu dawee yonent bi topp seen ginnaaw di leen woo naan leen iyal ilayya ibadallah ñëw leen ci man yéen jaami yàlla yi keroog ñu bëri gestuwuñ parce que seytaane yuuxu na ci biir mbooloo mi ne leen yonent bi dee na rey nañ ko ndeysaan bi abu jahlin taxawee ci kenn ci yéeféer yi taxaw daal di yuux daal ne ana yonent bi yonent bi ne bu kenn tontu ana Abubakar yonent bi ne bu kenn tontu ana Umar bu kenn tontu mu laajte laajte yonent bi ne ku mu laaj bu kenn tontu mu ne gis ngeen yonent bi dee na Umar mun te tey boobu rek moom ko yaa mun a fen yonent baa ngi dund Umar xool naa la bul bul bul wax noppil mais ñooñu dañoo bëggoon yonent bi moo tax nanguñu woon baat xoolal ali keroog ba mu ci négociation bi ali bi mu bindee muhammad rasulullah muhammad yonent yàlla la Suhayl ne déedéet nanguma rasulullah nangu naa muhammad waaye nanguma rasulullah nañ ko effacé effacé ko yonent bi ne ali dindi ko ali ne man sama loxo bind rasulullah ma dindi ko abadan yonent bi wax ba sonn ali bañ ne duma ko dindi man duma dindi rasulullah yonent bi ne ko ali bindi moo tax waa ji naan yonent bi jàng na yonent bi ne rasulullah gi fu mu toll mu ne ko indi sa loxo mu indi baaraam mu teg ci mu fomp ko mu fompal ko boppam daan ne ko bindal muhammad ibnu abdallah mu bind rasulullah de ci bismillah bi la ko njëkk effacé loo effacé laat ko encore muhammad rasulullah kon waa ji li muy wax ne yonent bi jàng na anamu nan yàlla dimbali nan yàlla wan dëgg mu wërsëgal ñu topp ko dan lañ yàlla wan neen mu wërsëgal ñu sori ko keroog gaa ya daw ndeysaan du dara de innama li woo tey mbir istazallahum tarxiis loo na leen ashaytaanu shaytaan ndeysaan seytaane moo leen dugal ci tarxiis ci njuumte moom moo jural ñu daw waaye duñu duñu ay yaafus yambare wuñu mais seytaane moo leen dawloo waaye nag seytaane dawloo na leen bi baadi maa kasabu ndax dafa am lu ñu fàggu gis nga moo tax saa yoo tarxisee su la seytaane naxee rek dafa am loo def dafa am loo bàyyi saa yoo bàyyee dara ci diine rek seytaane tarxis loola waaw boo wàccee léegi léegi julli timis ba pare nga tëdd sa kawlal taal ventilateur nga ne xaaral ma noppalu tuuti waay bu jullil gee yow la ndax xamoon nga ne lii tiim la di upp néeg bi nugg bi lal bu nooy bi da ngaa sonn xamoon nga ne dooroo ju liggéey léegi nag boo yeewoo ñu ne asalaatu xayru minan nawmi nga naan si di di di di di di yow yaa ko def seytaane moo la yóbbu waaye yow yaa ko def moon ngaa toog ba ñu tëdd ba ju liggéey doo ko tëdd waaye seytaane moo na la moo tëddal dinaa la yee bu ñuy nodd gii ma lay yee bismillah daal di gën a ëpp ventilateur bi nag gën a metti yaram bi nag nga xoo fudd fudd tuuti rek mu xëcc affaire yi neex rek nga nelaw nag xam nga foo jëm 4 heures du matin julli suba tamit noonu la lay def noonu la lay def ci yeneen jaamu yàlla yi bi baadi ma kasabu yenn yi nga fàggu moo tax saykaane di la tarxis Adama ak Awa lan la leen yàlla tarxis loolu luñ def dañoo dañoo yemul fu leen yàlla yemle woon bu leen lekk ci garab gi ñu dem lekk gis nga lenn loo def rek seytaane ci lay occasion daan ne ah sama waa ji daanu na acca bismillah daal di jàpp ci tànk bi diri moo tax saa yoo bàyyee li la seytaane moom rek benn sëriñ dafa dégg benn waaye naan aouzu billahi mina shaytaan rajim mu ne ko musalu la ci mu ne lu ma ci musal mu ne nga bàyyi yëfam xam nga munoo munoo tey la lan samedi nga jóge fii léegi dem sangu ba set sul sa jiin braaye defar sa dàll ba mu liis dóor sa kap daal ne waa ma dem fee te ñëw nu mu tudd fii nii ravin maa ngi dem ravin te ñëw ba pare nga dem taxaw buntu ravin naan aouzu billahi mina shaytaan rajim waaw waaw waaw ku la yóbbu nga ñëw naan aouzu billahi mina shaytaan xaaral ma muslu balaa ñu may xool di ma catu tey ci suba maag benn chauffeur taxi billahi wallahi taalaahi chauffeur taxi bi de ci otoom man yaakaar naa sax bàyyiwu ci xel benn waay ne faatu géwél ku baax la ku gëm yàlla la jullit piir la gis ngeen keroog dafa feesal te grand théâtre ba mu fees dal ku bëgg sëñ Tuubaa la chauffeur bi daan may gestu mu ngi dawal ne mu gestu ma daal di yëngal bopp ma ne ko lan la mu ne waaw man li waa ji wax moo ma jaaxal ma ne ko lu ma mu ne faatu géwél dafa gëm yàlla jullit piir la ku bëgg sëñ Tuubaa la moo tax mu feesal keroog grand théâtre waaw ñaari seede yi nu mun nekkee ah ba pare mu ne vendredi damay raxas raxas ni ngeen ñëw soraano raxas mu ne na ngeen ñëw ndax keroog grand théâtre am na ñu mënul dugg yéen ñooñu laay may sens vendredi nañ ñëw ndax ñu mën a dugg léegi ñu ne gëm na yàlla ñu ne bëgg na sëñ Touba ma dañuy jël wax yoo xam ne ñi koy wax non dafa yéeme ah léeg-léeg nga ne gars yi nekk ci soirée ba caag waa ji woy ba caag kàppar ñi fecc daan nañu bëgg sëñ Touba jóg leen taxaw ana waa ñu bëgg alaaji Maalik gars yi jóg waaw ku bëgg alaaji Maalik jógal yëngu waaye sëñ bi yéen est-ce que yéen a ngi xalaat mbir yi foofu est-ce que bëgg alaaji Maalik ak sëñ Touba dina fa dem waaye nañ wax dëgg mais Sénégal loolu moo ko yàq parce que duñ leen wax dëgg nga defa ne ku bëgg sëriñ Touba ku bëgg alaaji Maalik ndax war ngaa dem ci soirée mais mala saf ndeysaan kenn du wax loolu mooy sunu problème ñun waa Sénégal noonu la ñu bàyyee gars yi ñu nekk ci soirée yooyu ñuy woy seeni sëriñ ñu ne taalibe dëgg la taalibe tooñ nañ taalibe de bilaay tooñ nañ taalibe yi taalibe waroon nañoo mars bu ñu jëlee benn mbër ñu ne taalibe dëgg la wala ñu jël benn musicien ñu ne taalibe dëgg la wala ñu jël benn góor jigéen ñu ne taalibe dëgg la wala benn ñu ne dëgg taalibe tooñ nañ taalibe yi tooñ nañ taalibe yi taalibe lan lañ ko doon xamee jaan taalibe diine lañ ko doon xamee alxuraan lañ ko doon xamee daara ja jàkka ja tool ba loolu lañ xamee woon taalibe waaye taalibe soraano ana àllaaji mu ngi soraano ana àllaaji ñu ne àllaaji de dem na grand théâtre on wona alhaji ko ala haaju on wona alhaji ko ala haaju Hmm? ana alhaji mu ngi super ndaje ana alhaji dem na lamb ja ana alhaji mu ngi ma nga soraano ana alhaji mu ngi grand théâtre yow ko tooñ na alhaji yi ku dem màkk ñëwaat am na leneen lu war a nekk sa bopp loolu dem di soraano moo tax dañuy yàq dañuy yàq suñu bopp rek dañuy nax suñu bopp olof yi nee nañ ku noppi nax sa bopp sa aajo faju borom bi nee na gaa yooyu keroog seytaane moo leen tarxiisal na waaye nag ah ñoom dañ cee am dara de dañ cee am paar bi baadi ma kasabu ndax dafa am lenn lu ñu fàgg mooy dañ leen waxoon taxaw leen fii ñu lànk waaye borom bi xool leen ay mbiram mu ne walaqad wallahi afa allahu anhum man yàlla baal naa leen wala lim def ni mu réyee yàlla ne baal naa leen walaqad wallahi afa baal na allahu yàlla anhum ci ñoom yàlla baal na leen ndax inna allaha yàlla moom gafurun kuy jéggale la waaye xalim ku lewet la ndeysaan allahu akbar xoole ku mel nii rek nga def li nga def ba pare mu ne la baal naa la ndax lan gafuur moom day jéggale waaye xalim dafa lewet xalim mooy ku lewet gafuur mooy kuy jéggale xoolal li ñu def lépp ak ni mu gravé ak ñi ñi rey ni ñu ni ñu toll ay personnalité ci islam mais terewul yàlla mu neel baal naa leen kon est-ce que yàlla mi bëgg na noo mbugal ah bëgg noo mbugal waaye ñun nag ñoo bañ a dellu ñoo bañ a dellu ci yoon wi nekk ay jullit dëkk ay jullit duñu duñu jël benn aaya rek duñu jël ñaari aaya rek inna allah gafuru rahim Sénégal moom loolu mooy seen aaya boo waxee ñu ne inna allah gafur rahim yàlla day yërëme day jéggale yéen yéen a soxor rek yàlla day yërëme day jéggale rek tax nga nekk sa caaxaan yàlla day yërëme day jéggale waaye ci ku nangoo góorgóorlu ci diine yenn ndaw ndawaan yi ngay tarxiis di dellu siwaat di tuub yàlla da lay jéggal parce que tuub nga parce que tuub nga parce que jéggalu nga fas yéene coowoo dellu yàlla daal lay jéggal yàlla daal lay baal lu tax ndax moom yàlla xaliim moom yàlla dafa lewet benn borom xam ne iza qila alxilmu mu ne fa ujibu wa aqulu inna lilxilmi mawdi mu ne yenn saa yi nga dégg ñu ne dafa lewet dafa lewet dafa lewet dafa lewet mu ne waaye lewet dafa am place de wa hilmul fata fi gayri mahallihi mu ne jëhlun waaw waa ji de ku baax la waa ji de ku baax la waa ji de ku baax la waa ji de ku baax la ah ba benn bis ñu def la loo xam ne ñu ne waa ji de ku baax la mu ne nag kii nag baaxul dafa dof suñ ne mbaax mbaax mbaax dafa am place dafa am yoo xam ne nag kenn dootu la baal nag boo fa yeggee yàlla tamit lu mu la jéggal jéggal lum la baal baal baal am na foo yegg nag yow dañuy xam ne yow jéggalootoo yow da ngaa nekk ci lu la neex waaw mooy comme ñun lu ñuy def dem def loo neex ba pare bu ñëwee nga ne ah saafurulaay waaw saafurulaay saafurulaay maa ngi jéggalu waaw maa ngi tuub suba nga delluwaat bu ñëwee nga ne saafurulaay fii da ngay dégg ñu ne waaw da ngay dem def ba rek boo paree nga tuub waaw loolu mooy tuub da ngay dem defi boo paree nga tuub ak bëri lu mu koy dégg. waaw du yàlla moo ne day baale léegi man bu ma ko defee ba pare ma tuub xanaa xamoo boo xamee li bàkkaar la boo ko defee soo tuubee yàlla du la baal parce que xam nga ko yàlla ki muy baal mooy ku xamul parce que xamul même ci même ci seen règlement yi yéen ñi jàng tubaab da ngeen naan ci seeni loi lu ngeen di wax
ñu ne kenn warul réere loi bi ñu ne boo defoon dara nga dem benn waay bu saaga woon barki dem damay laajte benn booy ñu ne ma mu ngi ci kaso bi ju tëj man lu mu def ñu ne dafa dafa saaga commandant gendarmerie. ba pare ñu ne ñu ne day jéggalu ay mbokkam ñoo ne mu ngi jéggalu kooku loi bi moo ko dul baal ndax dañ naan ko yow waroo réere loi bi xam nga ne kii kenn war ko saaga keneen sax wa meena waxuma laak nag homme de loi kon nag mbokk jullit yenn aaya yi bu mu ñuy wor ñu làqatu ci nekk ci lu nu neex bu ma waxee nga ne yàlla day jéggale yàlla day yërëme yàlla ku baax la loolu de lu dëgg la bi gaa yi di wax yàlla day bale bakkaar mu ne xaafiri zam wa qaabili taw lu mu ci rek shadidul iqaab gis nga de gis nga lu mu njëkkee xaafiri zamb wa qaabilu tawb day jéggale ay bakkaar day nangu ku tuub waaye sadidul iqaab aka tar ni muy mbugale kon nag ñaari ngay àndal tarxiis daw delluwaat ci yàlla tuub jéem a sax ci tuub gi mooy tandiku bakkaar yi ndax yàlla subhanahu wa taala muccal la kon mbokk yi lii mooy sunu darsa tey ñu ñaan bur yàlla tabaraka wa taala mu def ci ñun dégg ak topp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu bu amee ay question incha allah tafaddal